lu jar a bàyyi xel nag sama gars ngeen defee ne bis bu Sadikh demee ba xam ni carrément doom bi nga xamante ne nag moom la jooju daal di porté nekkul moom moo ko moom sama gars lan mooy réaction kii di Sadikh ndax ñu bëri nag ñoo ngi werante que ni carrément jooju ëmb na ak ëmbul mais na sama gars yi soo seetloo ba si biir jooju elle est bel bien ëmb na mais. sama gars yi doom bi kii di Sadikh moomu ko quoi sama gars yi loolu mooy euh, conclusion bi mais nag euh, actuellement ni loolu nekkatul wax bi mooy lan mooy wax bi mooy euh, na la Sadikh di xamee que ni carrément nekkul moom moo jur doom bi. te bis bu ko xamee nan lay réactionné woo vie ko moom nee na moom léegi euh, day topp si tànkum njuga mais nag bis bu loolu génnee sama gars yi dina wàcc si tànkum njuga bu muy topp ndax yaakaar naa loolu noonu benn góor du ko accepté te tamit euh, joojo da koo nax ba pare naxati ko sama gars yi te góor moom loolu la gën a bañ mooy euh, jigéen bu koy fen léegi nag bis bu ñu jigee foofu dañuy jàll directement si instant te mën nañu instant nag dafa réewant sama gars yi ndax la moo tax mu wax loolu vu que moom problème bi nga xamante ne moom la yaayam def ça lui concerne pas loolu noonu nekkul problème moom loolu noonu yaayam la comme moom da war a maanoo ñëw soutenir meeram si ay situation yu mu nekk mais pas mu da koy sangale wala da koy euh, mettre euh, au dos moo tax nag kii di insa war naa xoolaat taxawaayam bu baax vu que moom nee na mu ngi doon woote si yaayam comme anam bagel boobu noonu nda yaakaar naa sa ak lu mu munti def ak lu mu def même bu doon yow def sa sama gars yi méritoon mu ñëw euh, second sens am nga may ko mu attrapé ko mais nag mun nañ instant day def tout pour éviter ko di def tout pour daw ko loolu yëpp muy simple erreur bi nga xamante ne yaayam defoon na ko par avant te loolu noonu papam moo ko tegoon moo tax sama gars yi instant doxalin bi muy doxalee nii nii mun nañ ni c'est pas normal war na wàcc rôle bi nga xamante ne moom lay jouer ndax lii ni c'est pas du tout bon ndax euh, yaakaar naa sa vie yaay sa yoon nekku si sa passé yaay sa yoon nekku si yow lenn moo la importe mooy amour bi nga xamante ne moom la ko sa yaay di la amul boobu eh, rek nga war a concentré wu amul boobu nga war a dem ba jeex mais yaakaar naa leneen lu si lakkatu rek loolu sa yoon nekk si war nga changer li ngay doxalee ak sa maire c' pas du tout bon mais nag sama gars yi waa baabal def nañu ko ah ñoom ham nañ rapporté li nga xam te moo nekk épisode yi eh, ba samedi te mun nañ ni noonu lay continuer ba koor gi dal di jeex sama gaay yi te ñu bëri ñu ngi nakarlu sama gars yi dinañ si eh, jéem a indi ay kàddu yu leer sama gars yi amul ragal dinañ si urt solution jaa ngeen